français est poussé. que cent dollars. si la bëgg a defante ak yow. si c'est possible. sa sëy bi yàlla la jig. yàlla mel ndoxam galaas. oui c'est possible sa mag yuusu. ñëw def jëmbi ci guddi. fi la ma fekk. Ah, kër gi wàcc ba sa raw. alors damaa bëgg a ñu ma am téléphone bi gis waate comme ni ma ko ma jëlee woon. may liggéey saa ma xëyee daw. Ah, dama di xew ay ay taw. ay ñu ne ay ñu bàyyi ko waaye dafa war a dafa war a dafa war a. ñu dem ñu dem. dafa war a présenté ñu dem ñu dem ñu dem. soxna borom yërmande. Baye Sal Mbàkke yaay borom yor ma Serigne Saliou loxo ca kaw mu sopp Serigne Saliou loxo ca kaw màggal borom yor mande yor mande ajaratu ay da sant Serigne Yàlla ba yor mande yee Mbàkke borom yor mande mi boo xewlee dan la wala Serigne Saliou borom yor mande bay sa sëñ Saali waay borom na ma ay da bu meree lu mu ti wax maa ci mën dara loolu yëpp àdduna yëpp xam nañ mm. xam xam xam nañ donc mu nekk xale bu yem dëgg xale lii mu li lii mu li ko arrivé tey jii nii tey jii mu nekk sëy loolu rek la jigéen di wut barke Serigne Babacar donc mu nekk xale bu yem ñu yëkkati aussi di ko ci ci loxo baax suñu goro waaw suñu goro suñu goro bi ñu koy teg nag ñu koy xamal ne dañ la jox xale bu baax mm-hmm. xale bu yaru xale bu am yar dana ko téye de bu ko téye woon ah, ah waaw dana ko téye bu ko téye taxaw am si njaboot bi bu barke yoo xam nga yoo xam nga sama diggante yoo xam nga sa diggante Ibrahima mm-hmm. donc loolu moom loolu moom mooy géej am na ah, moom léegi Ibou Ndour maa ngi lay nuyu Ibrahima maa ngi lay ziar Aïda maa ngi lay ziar Aïda lu dagg morom ma lay fekk dañuy sos bokku ca fu ah, ah, waaye kenn kos man. te liw bi liw ku ma yónni. Coumba hmm. la merveille couturière. une grande dame. sa njëkk dama koy présenté da koy di fekk naa ñëw fekk ak bisimilah donc ma doon yàggali nag ne Aïda ci jëm boppam muy sama doom ma du artiste si muy doomu Ibrahima mais man man yaayam yow la muy jël ñal mamam Ayda Samb moom la tuddé Ayda Gueye sama jabar yàlla yalla xara aljina lu jot yom yow ñu la ñaanal sax pour nga am li genn wal gi xamoo leen ndax sa yar nit ñi kenn mom leen man dama tuma fenn barka Serigne babak sama gem ma ngi sama kër tok rek ñu mo rek wa lu jot yomb te nit am lu jot bokkom ku japp sama bokk rek petit parce que nit ñi am nañu fu la faale ba xam ni ku la yëngu du la faale waaye Aïda Samb dama taxaw ne sa bis bi rek ñëpp la ko yéene ndax damay wax ni yàlla tëral na ñëpp yàlla kenn dama taxaw bis dama mais bis bii la suma kilifa nga dama lay bàyyi heure bu ñëwee Paris laa nekk maa moom ba guddi xam nga dama woo leen nit mbokkam yow Amady Ndiaye jabaay moo ay liggéey ànd mbay jaaj moo ko tudd ak Doudou Gueye lu jël ay liggéey tudd ko ay sàmm kon yaakaar naa ne mbokk moom la su lii waaye nag am naa bu def kay soxna tuuti

ñi fa naa ni fële